gën Sicap Mbao bokk ci commune yi nga xamante ne ñoo gën a yaatu ci département bu Pikine daanaka mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu ci mel ni manque d'infrastructure looloo taxoon ba Pape Gueye nekk doom ci commune boobule taxaw interpellé responsabilité bu état bu Sénégal ci wàllu wi. d'abord Diamaguène Sicap Mbao moo tax may xeex tey lu mel ni école Fass bee boo demoon gis ko. man maa ko réceptionné ba mu mel ne am mébét ci jàmm gën Sicap yoo xam ne tey bëgg nañ ko defaral jàmm gën Sicap Mbao moo tax ñu gën a rey suñu bopp parce que am loo xam ne boo ko bëggee ci jàmm gën Sicap Mbao te eggoo fenn fi te autorité yi nga yi nga nekkal nanguluñ la mënoo liggéey jàmm gën Sicap Mbao ci jafe-jafe yooyule yi nga xamante ne commune bi mu ngi koy jànkoonteel bokk na ci mbënn mi nga xamante ne depuis ci ay at yu bëri ñu ngi koy nemmeeku ci gox bi loolu moo taxoon ba ki nga xamante ne moom mooy responsable politique bu faj ma bët askan wi ci gox bi daal di taxaw dem ngir rek mun a soutenir candidat bi nga xamante ne pare na ngir saafara jafe-jafe askan wi ci jàmm gën Sicap Mbao. politique dootuma seetaan kenn di ko yàq ci jàmm gën Sicap Mbao. ndam li élection présidentielle aussi ñu ciy waaj loo xamante ni bi tey. bëgg nañu tey koo xamante ni bii jafe-jafe Diamaguène si Mbao am nañ ci moom yaakaar ni moom moo ñu ciy taxaw incha allah dañ ko ciy jàppale ànd ci ak moom. responsable politique bii de am na it mébét samp ndëndëm di sàkku mairie bi foofee si Diamaguène. jàmm mairie Diamaguène Sicap Mbao man benn su ma sama su doon wax ambition benn laa am muy mairie jàmm Sicap si le reste yi pour que jàmm Diamaguène Sicap Mbao wax ay soxlaam ñu jàppale leen moo ma ci dugal mais Pape Gueye li mu gëm jàpp ko. te def ko sama xel mooy que élection mairie bu amaatee li ma jàpp mooy man Pape Gueye damay nekk maire Diamaguène Sicap Mbao gannaaw ay weer rek a des ngir ñu dem ci élection présidentielle yi ñu dëngmal ci atum 2024 Diamaguène Sicap mbawo bokk ci commune yi nga xamante ne daanaka candidat yi daañu fay dem di sàkku ay voix ngir ñu falu waaye Pape Gueye mi nga xamante ne am na it kàddu ci gox boobule daal di taxaw tem ngir di soutenir ki nga xamante ne am na ambition ngir jàppale leen ci jafe-jafe yi ñuy dund ci gox bi